bii moom yàlla na ci yàlla teg loxoom rek wis si ndox bu sedd waaw ba ñi nga xamee ni hmm. ñi ngi toog eh, di xaar di di di bëgg di di critiquer ak yooyu yàlla teg leen gàcce boo xamee ne kenn du xam la ñuy xaar de leli voilà lu ma wax dañuy bëgg mu teg kan looma lañ bëgg wallay mais ñëpp xam nañ li ngay li ngay def dafa dafa c'est très c'est très intéressant parce que dafa nekk lu nga xamee ne daf ñu daf ñu tenir à cœur parce que deewu Aziz bu fekkee ni nit ñi dañ ko commencé di fàtte ñun ñun ba tey mi ngi bees ci ñun suñu biir xol yi euh, di ñaanal aussi ki nga xamee ne dafa dem ba ba ba Gambie pour pour jàppale euh, gendarme yi pour ñu pour ñu pour ñu jàpp femme boobu kooku itam yàlla na ko yàlla na ko yàlla sàmm parce que moom itam bëgg na mbir mbir bi mu leer waaw te ñun ñëpp loolu la ñuy ñaan yàlla que mu leer wax wax dëgg yàlla mu leer naññ waaw parce que yàlla ñun fi mu ne suñu xol yi jeex nañu ak insomnie yi ñu am insomnie yi dépression yi voilà ñàkk lekk boobu yëpp lépp si Aziz voilà yàlla yàlla leeral mbir mi yëpp mi ngi noonu ba nga xamee ni lii dootul dootul amati Sénégal parce que lii dafa ñaaw ko dafa ñaaw trop trop ba ci kanamu yàlla dafa ñaaw kanam ba ci kanamu yàlla te sénégalais yi nga xamee ni dañu commencé di fàtte nañu xalaat wala ñi di def hypocrisie ak affaire naa fekk nañu xalaat bu fekkoon ni seen yaay la wala seen papa la wala seen euh, frère wala seen tante wala seen sœur la ñu def lii as liñ ko def dafa metti metti metti ak euh, ku xale bi ki euh, euh, aussi waaw waali aussi maa ngi di ñaanal yàlla yàlla plus jamais bu amati bu amati Sénégal parce que ñun suñu der fi toll dafa des fois dama naan le grand remplacement dafa Sénégal dañu remplacer bi indi indi fa quoi man je comprends plus rien mi non noonu yow dal yal na la yàlla may ndem te yow tam foog ñu décorer la hein. juge contamination de ñun ñëpp ñu la. voilà maa ngi bàyyi bi ak ak ñeneen voilà. ndeysaan yéen a baax yéen a baax yéen a baax euh, nanoon naam xaw naam. bisu da nga bëgg bisu bu sonko ñëw mata yaa ngi ruube rek ñëwal même mm-hmm, eh, <laughs> bu ñu nekkee ci suuf dañuy tapote dara déranger kenn du yow man moom bu ma gisee nga taal mm-hmm. moom xamal ne moom YouTube sax duma fa dugg fii rek toog seetaan fii la mburu bi di xoyom xoyomee gis du désert ñun daal ñoo ngi xaar lépp lu lépp lu kii wax fii yépp lu am la lépp li nga njëkk a tàmbalee ca commencement ba fin gisuma benn boo xamante ne eh, niil na te am na ñoo xamante ne dañoo yore seeni soccu rek di soccu pour xaar ba xam ñax ñun dañuy am défaite wala dañuy am ndam waaye ci kàttan ñas ñay ñay soccu sa ginnaaw inshallah rabbi ci kattanu yàlla ya man de maa ngi xaar Aïssa inshallah te man li bas wax gëm naa ko nga wax yow gem na ko gëm naa li nga wax macha allah vise dëgg Oke, ok yow man ki fàtte woon naa de Maguette Touré moom moo fi jitu de fàtte woon naa ko Touré salaamaaleykum Gilles Maguette Touré ñëwoon. waaw <laughs> ndax moom fii ñëw fii guddeegul man on nelaw bu ko. Gilles ci loo yaa ngi si jàmm. waaw ñu ngi sant nii rek. waaw maa ngi lay ziar di bëggee nag wax dëgg yàlla di wax la ñu ngi kontaan ci yow. dooli bëggee. depuis problème bi wax amee ba léegi benn yoon laa dugg te mënu moo war na wax sax ndax jooy ndax xol bu metti Mm-hmm. vraiment ñu ngi ñu ngi rafetlu seen liggéey parce que lëntoon ci suñu xel yeeg suñu xol bi yëpp ñu ngi commencé di ñu leer à à travers sa sa live kay def vraiment ñu ngi ñaan suñu borom lépp rek mu gën koo leeral leeral lépp rek ndax am na ñu nga xamante ni ba tey nii gëmuñu sax ne euh, laa fille est coupable ñu ngi nekk di wax des fois damay taseeg ay vidéo ñuy wax yoo xam ne ñii est ce parce que am na loo xamante moom jarul sax ñu koy laam-laamee ndax lii am na tout est sur sur blanc sur sur noir loolu kenn mënatu koo war a def te aussi tamit ñuy sant bas bi nga xam ne moom def na ci lu rafet ndax munoon na ne sëriñ laa sëriñ la def nañ ma sama xaas damay liggéey daal dina def sama patt bi mais par contre moom def na li fi yëfu jullit leeralal ñëpp lu mu ñu bëggoon a xam mu leeral ñu ko kon ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla gën a leeral ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp am jàmm parce que nii foo ñu traité ko boobu ñëpp am jàmm ñëpp ñu xam ne lii lii la ndax nit ñi sonn nañu pression bi jàpp ne nit ñi doo comprendre yaa ma gën a xam man daal maa ngi ñaan suñu borom rek ñi leeral yàlla na leeral te bu leeralee rek tam na justice daf li war ci ñoom affaire bi daf ma traumatisé bu may nelaw sax damay gént tey damay nelaw sànq ma gént ka nabu ngay dafa gént. bilaay bilaay commencement bi jooy nga fa jooy yu métti ndeysaan. je te le jure affaire bi dafa ma dafa ma dérangé dafa ma dama dama mel ni naa ci am dama sànq damay nelaw gént nabu lay dafa génn mu romb ma nii mën naa waa kii nan la mën a génne ak lu mu def nii yëpp lii la ñuy wax ne Sénégal moom lu ko amu fi. billaahi ci gént de noonu. nabulay xam nga la moo koy génne instant mm-hmm. xam nga luy génne nabulay. Mm-hmm. Aïcha ñëw génne mm-hmm. ay information ñu jàppaat ñeneen ñoom ñëpp ñu setal nabulay loolu mën na génn sax gént gi tam mën na nekk dëgg. Ah, yàlla baax na yàlla rek man daal confiance bi moom yàlla bu mu ci taqee yàlla bu mu ci laale waaw su ci taxé su ci laalé laalee yëpp dina bét askan bi ñëpp dina leen bét ñëpp dinañ am gëna am na naqaru xol wallahi azim waaw xalaat né mën na plaidé non coupable ah man mom xalaat da nga xalaat né mën na plaidé non coupable non coupable mom lay plaider non lay jom ko plaidé non coupable lool moom mën ne ah mën ne juge juge Nabou dafa am fit Nabou il hmm. a pas froid aux yeux moom waa avec sa réaction moom rek ku ko gis hmm. loolu moo xam ne ku am fit la parce que mi nit ku am hmm. fit dong moom moo mën a def lii man à travers tous les propos may déglu moom nii ku am fit surtout jigéen man docteur ba lañ jigéen man boo doon góor sax garaaw mais jigéen mu nekk ci lii rek man moom ma traumatisé traumatisé wallaay hmm. maa ngi lay bàyyi ji dama sant rek di leeral yi ma ci a xam ne yi dañoo wàcc ne maa ngi leen di jël nii ci bis bi merci Banjul waaw. waaw Banjul na wax ba pare. asalaamaaleykum. Banjul. maaleykum salaam. na def. Banjul mooy Gambi. waaw Jeyna <laughs> Bala Jeyna <laughs> Bala tudd. Jeyna ba yowit nga jël sa bopp rek tuddee ko Banjul lii tamit. wallaahi. Hmm? Kaolack laa yaroo Banjul. Mm-hmm. yaa uh, di la di la ziyaar bu baax baax na Aziz di nuyu femme bi nekk ci biir groupe bi yépp di mm-hmm. leen bëggee um, du faral di yéeg si kaw live waaye ba ma dugg sa live ba tey mënuma fexe ba rate di di nag sa liggéey bu mm-hmm. rafet bi ak yow ak sa sa équipe bi kenn du yéen di dolli di leen wax ne ay sa mii jàpp gambi du am soxla ci moom day dem bu soobee yàlla gambi ak sénégal ñoo bokk ndey ak baay génn nañ ko yéen ñuy doog a ñëw Aïcha Aïcha génn na territoire u gambi génn na territoire u gambi dégg naa la koy wax am na ñu waaw wax ne dina yéex wala ñi doon ne foog ne nañ ko joxee dama am na benn loo xam ne am na diggante Gambie ak Sénégal loolu yàllaa ko def Sénégal mu ngi wër Gambie si ñetti côté yëpp Gambie ci biir Sénégal la nekk te ku am te ku nekk Sénégal mm-hmm. am nga am nga mbokk Gambie ku nekk Gambie am nga mbokk Sénégal di ñaawlu torop torop torop mm-hmm. li xew ne Sénégal yal na yem ci lii suus yal na yem ci lii yàlla buñ amati lu mel nii man man gis nga man ni Angleterre laa nekk waaye dama ragal a ragal a ragal bark bark rasulullah ak waxtu bi man dew ma liggéey ba tey billahi lazi laa ilaha illallah ba léegi dew ma liggéey ba li xew ba tey liggéeyuma billahi lazi dama am dama am feebari ragal da nga gis sama anxiety bi dafa. jox merci Bisco ci li nga koy leeral Bisco merci. Mhm. dama am anxiety. waaw Bisco li muy leeral lool la bas du sëriñ meeram mooy sëriñ. naam. ñii di bind naan bas sëriñ léegi bas du sëriñ en même temps ñuy laaj bas bas bas bas dafa xamoon ni affaire bi demee ci diggante bi bas moo leeral lu bari ba ñu jàpp Aïcha bi yi yéen laaj kuy bas. waaw Bass meeram mooy sëriñ moo rek parce que ku soxla dara si moom ngay jaar mu dem si meer mu defal ñu koy ñaanal ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla bàyyi ak xelam bàyyi ko maamam jooju. Mhm. te ji yow sa liggéey sa liggéey rafet na ji rafet na ñu ngi koy rafetlu yal na la yàlla dooleel ëpp nii yow sa équipe bi nag sa sa sa famille kenn demul ñu des. maa leen maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ku nekk sa tur ak sa sant yéen faanaa leen de dama leen a faan mm-hmm. te maa ngi jàng lu bari ci yéen mm-hmm. wallahi lazim te ñun jigéen ñi nañ bàyyi xel su mm-hmm. buñ dematee di ut di ut ay ñaan nañ ñaan pour suñ njaboot nañ sàkkee suñ bopp a suñ bopp waaye gis nga gis nga kenn ñàkkul li nga am boo ci amale sa bëgg-bëgg rek riis nga nañ bàyyi bëgg bi ñun jigéen dañoo bëgg nag nañ bàyyi nañ wàññi nañ wàññi te di leen bëggee bu baax a baax naa damay dem ci suuf di di continuer sama tappate nag may tappate rek zi yow yow kenn yan na la yàlla defal jàmm ndeysaan kontaan naa trop ndeysaan maa ngi jégalu de kon de tappate nga ba sa baaraam yi di metti non dafay dama ko damay tappate ba bandage baaraam yi garaaw bilaay bilaay ji ji ji jaral na la ko merci encore ndeysaan merci jërëjëf merci ndeysaan ndeysaan am na solo ngi nag duma tëdd pare waaw merci. waaw ndeysaan. juge ma ah? ñëwal parisienne yow lu la neex waa juge dama dama sànq ba léegi maa sam kanam ordinateur di liggéey rek léegi dama doon dama doon wax benn affaire. juge gis nga Aïcha. Hmm. ak Naboulaye. Hmm. dañoo yàgg nekk association de malfaiteurs. lii du lu bees si ñoom. Hmm. cest à dañoo tàmm def ay raquettes. xam nga di liggéey nit pour jël xaalisam. di dem ci mystique pour jël oto jàmbur dañu tàmm def muy réussir bu dul ci mystique sax dañ ko tàmm def physiquement di dem di dóor marteau nit di récupérer c'est-à-dire alalu àddina tolloon na leen niveau boo xamante ne bul ko foo ko natt gis nga Nabou Leye ñun dañ koo sous-estimer en fait dañ koo sous-estimer trop mais boo xoolee après les événements li xew yëpp ngay xam ne ñii ay bandi kasara lañ ñii duñu sax ay cuune ci banditisme c'est-à-dire yàgg teg seeni plan muy marché mais bii Aziz day da ëpp bopp bii xam naa nee neen comme Aziz hmm. bi yoon tëdd na ci kaañ tëdd na ci six millions huit cent affaire du jàllee noonu duñu du six millions huit cent yàgg nañ ci teg seen bët gis nga loolu c'est une chose dans l'histoire deuxième chose bi nag moom da cee boole nag léegi euh, soxoor ah, ba pare am possi possession dafa dafa elle était possessive si Aziz cest dafa bëggoon moom jël Aziz nànk ko moom kese séparé ko de lépp lu takk si moom perverse narcissique la c'est-à-dire elle elle hmm. était calculatrice si diggante moom ak Aziz nabu Aziz moo ko jàpp mais moom jàppul Aziz te Aziz kenn gënu koo xam nabu lay moo la gën a xam bu dee banditisme yi ngi ci nabu xam na ko bu dee lépp xam na ko mais xam nga nit di ànd ak moom mu am ay défaut ngeen dama koy téye kenn ni ko yàlla bindee Aziz nag xam naa foofu la téewee Nabou day naan napp lu mu sikk sikk dama koy téye. damay jël yow yaa moom. sa micro. léegi bene possession boobu mu amoon si si si Aziz di ko mu accaparé ko séparé ko ak bépp bépp nit bu amoon bu bu jege woon buy côtoyé Aziz mu am contrôle bi à cent pour cent si Aziz mu boole loolu nag ak capable. donc day boole coupable capable après nak dernière série bi mu def moy criminel bi nak Nabou elle a fait la totale gis nga Nabou lolou mu meun yëpp nak elle a toujours fait avec Aïcha man dama djema dama djema euh, étudier sa personnalité dama étudier personnalité Nabou mais boko ko li lii du lu bees si moom te elle réussissait ses coups à chaque fois Nabou moy ko xamante buñ ko newoon defal sacrifice indi ñu deretu diw sax boko ko nga jaar fi riche dina ko dem outil ji indi ko xam nga nag kon fii éducation de base day dellu si nañu yar suñu njaboot ci doylu nag li ko yóbbee lii yëpp ñàkk doylu la ndax tey jii bu xalaatoon ne bakkanu Aziz ci lay des du dugg ci lii muy dugg mais ñàkk doylu bi yeggoon na ko foo xamante ne mu li mu boole en fait il regroupe tellement de de trucs boole ñàkk doylu boole bëgg récupérer xaalis banditisme ñëw tege ba pare ak possessivité boobu mu amoon si Aziz mu dem ba xam ne nag mi ngi koy perte lu tax mu koy perte waali da ko doon gêner ndax musul gis nit jege Aziz comme nonou nonou nonou mom mo jege won Aziz bo xolé tout temps frère wali dañ la naan ñun sax xamuñu won fan la Aziz dëkk waye nabu bu doon ko bax yow ngay gis sa xarit nga dëkk fi musoo fa gis mbokkam di ko ne yow tel jour indil sa waa kër ñu ñu ñu kii ñu añ ñu rendu ñu xam mais musuko ko da ko doon jéem dévier tout temps de la société pour am ki bi à 100% pour nan ko ko à 100% gis nga nak ba mu commencé perte lolu elle s'est sentie menacée benn nit nag moo ko doon gêné dans l'histoire muy waali donc moom dafa am beneen touche bu mu doole ci waali mooy haine mais à la base moom kenn du wax leneen xaalis moo ko ci dugaloon xaalis six millions huit cent bi moo ko ci dugaloon ndax doyluwul bu pare na pour joxe gis na te ay ñi naan est-ce que mën nañ ko libérer mën nañu ko libérer nabu elle est mouillée jusqu'au cou elle est mouillée jusqu'au cou gis na ay bornage yu téléphone am boog appel ak meurtrier yeeg yooyu yëpp c'est pas anodin yooyu yëpp si il faut bien prendre en compte Yo, yëpp c'est pas anodin même bu indee mhm. leneen même na dem kanamu juge sax mu mu mu plaider non coupable mais il y a des faits qui sont là. waaw waaw c'est là beaucoup mais c'est-à-dire boo koy preuve. même bu dee coupable ñun ñëpp ñu xam ko munoo ko inculper sans preuve. mais mais mais léeg-léeg da nga ko léeg-léeg jàppee ay preuve peut-être mu nekk ay preuve preuve yu. non non côté juge bi laa man xaw ma ba tey lan la juge bi di ko plaider de. exemple laa la jox quoi. d' accord léegi nag bu ñëwee plaider non coupable. mun naat hmm? nañ ko def détention provisoire ba keroog ñu koy sax ju ñu koy ñu koy sax jugé wala xaw ma lan mën nañ ko fa tega tega teg dèjà nabu man ay jugement am sax dama kaa waxul léegi. nabu ay dossier Ndella Madior Diouf jiitu nañ ko fa. ay yeneen jiitu nañ ko fa ay yeneen doomeraam jiitu nañ ko fa. donc hmm. nabu moom kaa am sax dañ koo waxagul léegi moom na fa toog bay waaj a nëb bay waaj a nëb. ba Aïcha fekku ko fa ba ñu rayante ñoom ñaar te xam nga juge nag li gën a dee mooy dama ragal ay mii moo nar daaneel Nabou Aïcha mii dinañ leen defal confrontation moo ko daaneel de moo ko nar a daaneel moo ko nar a te dinañ rayante te di yuuxu dina jub fuñ ko fageewul dinañ dem jàpp ji ñeneen ndax dinañ ñëw xam nga ñaar nit boo leen confronté wee kii di wax kii di wax gars yi dañuy toog di leen seetaan rek de di noté mais yeneen tour dina génn si seeni xuloo surtout confrontation jigéen ce sera pas mm. facile confrontation jigéen ci ay xuloo lay mujjee ak weeraate ak yàkkante musiba ak wax yeneen i nit yoo xamante ne ñun xalaatuñ ko woon mm-hmm. waaye le temps nag nous édifiera juge ñun ñu ngi toog xaar ay mu ñëw dëgg ngi jox keneen mu wax dëgg la euh, ñëwal rasul ñëwal doli is here. waaw Logis ñoo ngi apprécier ni nga taxawee depuis boobu ba léegi. Eh. merci encore. oui parce que jugoo pour wax dara loo xamante ni si dañu xam ne lii da nga ko wax pour wala da nga ko wax pour yàq. so da ngay gis ni li ngay wax lépp da nga koy wax da nga ko teg si yoon moo tax ma lay suivre boobu ba léegi because like ñuy def live TikTok di wax si mbir bi bari na mais ñu baree bari demeewuñu si seen xel. so loolu rek laa amoon lu mu weex ñu bañ a ñu gën a xamaat tamit aussi ni suñ police moom dinañ def seen liggéey ak lu mënti am wéeri wéeri jariñ laari ku ci taq ak ku ci taqul danga seet ku ci taq tamit aussi yoon li mu war a def dina ko def donc ñuy ñaan rek xew-xew yu mel ni gën di gën di gën a gëj Sénégal because tey like boo nekkee si àll bi nga yaroo fi wala nga màggee fi nga naawloo woon Sénégal di yàkkam ci vacation jot pour nga dem Sénégal but right now wóorul da ngay bëgg a dem Sénégal sax say parents dañ lay téye dañuy wax ni bul dem because dëkk bi ni insécurité ba fa ne so jot na daal ñu gën a defaraat toogaat yi xam ni ñoo bokk yaay ñoo bokk baay gën a sàmmaat diggante bu baax li ñuy def lol mo nekkon sama participation. ok kilifa gi deglu nañ la participation bi amna solo. yalla amna na solo Bijou bu Sonko. Ndiaye 92 ñewal Ndiaye. gars wax bu bari bi mom mënu ma ko de dama dama leni wacce de wax bi mom du ma ko mën. salaamaaleykum ñëwal. ñewal ngeen def na mun naa leen. waaw yow dem na balay wacce heureusement nga wax. naka la man. waaw waaw yooxu naa trois fois yooxu bi day metti loos. wala ba ngay naan yaay ñëwal maa ngi ubbi sama micro. ma parce que maa ngi toog di déglu demu ma. merci kon ñëwal baal ma. <laughs> yéen ci jàmm. merci ma. คือว่ามันมันใกล้เลยบอกว่าเห็นมันหมุนแล้วมาเล่นอันนมนยมปาริเซียนะยมเลวปานเยอะนู่นเลยเขาเยอะนมนมีมันมันหมุนมาตลาดเสกาวนะบุเลยมันข้ามนานสิละบอกคือตัวมันเป็นเล็กคือว่ากว่าคือสวยๆเป็นยาละมาสวยๆอ่าเว้ยสิละบอกคือเด็กว่าละมาชอน Aisha, te dio el contigo. Aisha, bebé. Porque llega hasta tan también. sama ne dangaa nekk naa fekk rek da nga wax dëgg mais kenn mënu koo setal moom moom bu nekkoon góor sax moom bu nekkoon góor ñu ne ko moom sama ngor maye may ma njaay may ma Aïcha ma ne moom su nekkee góor moom bu nekkee góor ay góor jur ko buñ ko setaloon sax bàyyi ko danaan déedéet bàyyi leen ma prison bi ma toog parce que sama ngor mayatuma may génn ndax xam nga hmm. lu tax nu mu meloon ak Aziz ak tudd buñ ko ci tudd loolu rek waroon na kaaru sax ah loolu rek waroon na koo mën a rey ne nañ ko bàyyi mu toog ci prison bu mu génnati bu dee gor na rek laa wax man moom wax dëgg yàlla kaaw na bu leen moom waxatu ma si dama see sonn dama see taay wax dëgg ko ah, ne xaar fu nekk nii ñu hmm. ñëw ñu ñëw vingt ans ngay xaar waaw ñu ñëw àtte ne Nabou nañ ko loolu kese laa ci xaar mais pas leneen yàlla xam na ne dama leen a namoon bëgg leen a ziar leen rek moo tax ma yéeg. merci kontaan nañ ci yow. waaw daa Nabou Leye bi moom mooy loolu parce que bu ñu maa ngi jéggalu nag di ziar ñëpp ñoom yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu la guerrière bu Sonko yéen ñëpp maa ngi leen di merci beaucoup merci ma belle merci. maa ngi ci suuf léopard nag dinaa ko liveal parce que waaw man bëgg parce que ku toog xam nga kotu page bi moom moom rek ko amoon ñoo ko ubbeendoo day jékki-jékki xaw ma lu muy def modératrice yi duñu mën a yéegal des fois ay problème day am duma leen gis te mm-hmm. des fois damay soxla ay modèle mais xëy na day bëgg a xàmme gars yi yéegal wax des fois daal daf may def yëfu kooba daal. dama koo juum nag joxoon ko kotu page bi. te yàgg yàgg mën na sàcc page bi instant bi bu ñu xuloo muy sàcc page bi. suñu xuloowee nii day jël page bi génn ma ci biti. jikko kooba la yor a far moo tax may naxanteeg moom gars yi duñ comprendre jikko kooba la yor de. su ma ko su ma coowee leen ma dégg de page bi lay sàcc génne ma ci biti. man xam nga jikko kooba yor da nga samay naxanteeg moom. maa ngi nuyu ñëpp daal la guerrière ñëpp maa ngi leen di nuyu la lion ñëpp maa ngi bàyyiwuma kenn daal soo limee xam nga da ngay juum. waaw moo tax maa ngi leen di jaar di leen bëggee di leen wax ne bëgg naa leen de woon na yàlla lu ma bëgg wax rek da ngeen koy wax moo tax. doo amati looy wax. noonu la yéen ñi doog a ñëw di laajte Aïcha génn na territoire Gambie su ma juumul yegg si naa est-ce que yegg siwul su ma paree naa laajte lu leer est-ce que yegg parce que Gambie soriwul c'est comme Kaolack c'est euh, Dakar. ah Salimata na nga bëgg a Salimata kon waa kon xaar ma coupé comme comme que yow tant que wu ma doo mën a dem kiteel bo Salimata Isère ñëwal Isère ok ga yi sama loos baa ngi metti nag dama doon xaaraale kii yegg si ñu wax ma yegg si na Aïcha ma doog a coupé mais dama comprendre quoi Aïcha mii ka moo mën ma informer foofu moo tax mën a guma coupé live bi quoi. massa massa juge man maa ngi ah, lay maa man itam ba kanam parce que bëgguma noonu rek. maa ngi day maa ngi nuyu mm. waaw mm. à à à tout à l'heure mm. merci kontaan naa si yow waaw man tam kontaan naa trop bëggoon naa la xaw ma nag naka laa mën a def pour jokkoo ak yow euh, normal parce que man dama nekk vierge kii technologie bi moom ayu ma si noonu <laughs> mi ngi noonu daal moom bi ñëpp yor nañ ko kon nga bind si page mais jëlal 77 520 06 18 whatsapp bu Sénégal

waaw Aziz doo doo doo dallu damaa bëgg nga dallu ba si kanam. non non dafa lu ma doon xaarale dama xam ne bu ma génnee fii rek. du ma mën a génnaat di wax affaire Aïcha ñëw na damay jàpp moo tax. bésu kaa bi la ñuy bañ mu raw ñu dañ ko bëgg am. kaa bi laay bañ xam naa ne nata su fi ah, nekkoon di li live bi mais xam naa ne. man mii si mu raw ma de moo tax ma ne copp coppaala. waa juge. Mm, mm, mm. chum cum be ngane s'il te plaît récapital eh, cum be est ce que dégg nga français ba nga ne ma ñëwaat ci cas bi cas bi wax ko ba pare xana xaar Aïcha yek si juge récapitulatrice récapitule nga bëggoon ok leg leg ma yéegal gaay ñom ñi bëgg a xol la taama noppalu. xamuñu ko dëkk côté ginnaaw raay noonu sax ku ñu mën a jox ay nouvelle euh, yaayu Nabou Leye famille ay doomam ñooñu. comment Nabou waa ginnaaw raay yëpp a na ngeen def ñu ngi fi. yéen a ngi si jàmm. sant. nag. ça va. Sénégal nag. sëñ bi wàccal jàmm sante bu sori bi dama ko fi tere fi ful lañ nekké ici c'est pas un lieu de débauche du fuñu jaayé jigen wala goor gis ay jigen dajalo rek ngéni impressionné Sénégal li mo ñu le fal ndayam bay len romb buntu kër salam alaykum dem len jamma sante bi jaru ko naka njabot gi naka parents yi naka famille bi demat taxawat ne ko sa yaram jàmm naka njëb mais mais mais lii ba kañ ça va ça va def doy na waxal li nga bëgg a wax lii moo may yëngal quoi lii moo tax ñun mënuñu am xaalis américain time is money yee pare na français bi bonsoir dem na mais jàmm santé bi pour lan la da ngeen ni fekk buntu ko jàmbur ni ñi di ataaya benn maire romb fee yore bool na ngeen def xale yi ñu ne ko maa ngi fi mu avancé taxawaat ne naka njaboot gi ñu ne ko ñu ngi fi mu avancé cottu nday lii ba kañ mais man lii moo may énervé loo ko te lu ñu jàmm santé nu ñu amee weccet la ñuy xool mais jàmm bi bu gudd bi pour lan la Sénégal lii moo tax bu dem benn nuyoo doy na yaaram kàllaa yaaram naka bi naka njaboot yaaram coot to to to mais lii ba kañ. seet teet teet teet ñu lii moo ñu tardé. lii moo tax ma bëgg la ba xam nga loolu. Hmm? lii nii moo tax ma bëgg la ndax waaju ma daf ma commencé woon énervé loo sax parce yow lay jàmm sante doo yaa ngi déglu kay. waaw wax na jël nañ la sante kenn dafay gis. ak yabaate ak yabaate. waaw mais nii ñee bokkuñu fanaan wala dañu xamante. jàmm sante bi pour leen. naka Sénégal moo dafa am ñoo xamante ne amuñu savoir vivre doo yëg wax la débat yaa ngi doon bi sax dinaa si ñëw Sénégal lii moo ñu tardel bàyyi leen romb kër jàmbur salaamaaleykum fay nañ leen dem leen seen yoon naka njaboot bi ñu yaakaar ne nuyoo bi jeex na maire bi avancé waat ak boolam bu dee imaamu jàkka bi la course bi lay jël taxaw tuuti marqué stop na ngeen def xale yi yéen a ngi toog ñu ne ko yaa ngi fi mu avancé waat taxawaat ne ko waa ah foofu de neex mu ñu yaakaar ne nuyoo bi jeex na mu taxawaat naka nje coot toot toot toot toot mais c'est incroyable ça. léegi nag léegi nag kaan wax sénégalais dafa baax. c'est incroyable quoi. léegi sénégalais na kooku lañuy wax dafa baax nag. loolu loolu mm. mais waaj ni mu yeggee sax sérieux indiw ko waaj dafa ñëwoon pour ruube fii. moo tax ma teel ko débarrassé boo ni mu commencé wee man bëgguma woon sax mu yeggali waaj lu sérieux indiw ko fi woon. xam nga ku naa naan naka Sénégal bëgg xale yi ñëw abone si yow xam naa naan waa ji newul Sénégal donc xaaral. Ah, naka Sénégal. naka Sénégal moom mën na maa rey. <laughs> di impressionné. Bisaer Bisaer waxal. Fatura seu micro, fatura azul, s'il te plaît. Fatura azul. Fatura ramna, se vetu jacala. Okay. Faatu yow it bu ñu jaxaseeg yàlla nag faatu bu ñu jaxaseeg yàlla ñun dañuy julli julli. Faatu tëjal sa micro jaxaseeg yàlla nag tamit. na micro même ma dégager user wax bu bëri bi daf ñuy sonal ma dégager user Nabou Leye ba muy waroon na xalaat njabootam man damay toog di xalaat doomam di nag parisienne valable pour tous les femmes banlieue ku fi nar lu bon sa tur bi nii lay wëree nar lu bon ba leneen fekk la ci di naral góor lu bon sa tur bi nii lay wëree rek yàq na askanam ah yàq na ah, askanam mm, elle a mm. détruit la vie de sa fille ah te Aïcha bu duggee Dakar est-ce que xam nga ne da koy chargé. Ziz du waa banlieue kese de du waa banlieue kese. valable pour tout waa banlieue bi ñoo am habitude bu salte bi quoi waa waa waa Sacré-Cœur bi ko def waa non fa ñun jigéenu banlieue bi boo xoolee jigéen ñi gën a bandi si bi lañ dëkk man je le dis parce que si banlieue bi laa dëkk mais jigéen ñi gën a bandi bi woote Sénégal ay bandi ay bandi ay Sembéré ñoom ñëpp ci banlieue bi lañ dëkk nañ nañu waxante dëgg ñoom la ñoom la ñoom waaye euh, papa Lamine ñu waa Baale de man waa Caaroy sax laa wax Caaroy laa accusé man Caaroy waa Caaroy juge ñoom la de Caaroy lépp ñoom la e papa Lamine ñëwal ñëwal dugg naa dugg naa waaw waxal salaamaaleykum maaleykum salaam maaleykum salaam naka sëñ micro ah ok ok waa sëñ Babacar ñu parisien man dama sànq dama doon pour ndogu ji quoi dama dama dama wooroon moo tax. waaw ah, d'accord ok. juge. waaw. waaw man ñaanal naa bu baax moom frère. Euh, amiin waaw gàcce te li ma lay wax nii barke Seydina Mohamed sama xol laa li ma lay wax nii sama xool laa ko tibbee parce que affaire bi affaire bi bu mu méttee ba métti yow kese yaa des si xeex des si xeex bi. billaay ñeneen ñi si des ñëpp tala talatuñu dara ñu ngi ci manifestation yi di fecc ak tëgg comme si bien que crime mosul am Sénégal. c'est que Sénégal naafiq gi la ñu war bàyyi. dañuy jooyle nit deux jours trois jours ñu bàyyi ko nañ bàyyi loolu juge. nañ bàyyi loolu li waral leer nay leer tout temps pour que nit ñi ñuy xam fan la ñuy teg seen tànk par rapport ak parisienne fu muy waxee man je crois que léegi on on commence à perdre nos valeurs parce que jigéen boo demee ba am ay fit di def yenn yi man je ne plus le Sénégal. Hmm. Hmm. dëgg o réseau mi ngi dagg réseau mi ngi léegi Lifa Diop ñëwoon Lifa. Babacar sa réseau mooy dagg. xoolal demandé waatal demandé waatal. maa ngi nuyu. delloo Lifa. sama réseau normal Lifa xaar Babacar eggale réseau baaxaat na. waa parisienne géral quelques minutes ma tëj sama micro. Babacar waxal. ok ok gis nga débat bi débat bi ngeen ñu mëne nii lii mooy àdduna nit looy nekk da nga ciy nekk bu bu bu bu jëy amee buñ ko gaaw fàtte Sénégal dañu lay jooyle deux jours trois jours après ñu fàtte dara loolu affaire de naaféq la te juge barke mhm. alxuraanu karim on tànk laa mu neexoon tey buñ la woowee tey foo ma woowee mhm. téléphone ma taxaw jàkkaarloo ak yow parce que duma la mës a bàyyi en rat li ngay def loolu la Sénégal soxla Bassirou Diomaye loolu la soxla lépp lu fi leerul ñu koy leeral projet boobu lañ ko mhm. votelee jërëjëf yaa compris bañ naka bañ naka ba chaque fois démb rek démb rek moo si mujj journal télévisé dégg ngeen bi mu naan ci géej gi képp ku am non alerté nga alerté donc il faut qu'on alerte il faut que ñuy alerté bu kenn ragal projet boobu lañ fi tegee ñu fi toog man de barki Seydina Mohamed bu ñu la woowoon tey soo ma woowee quatre heures du matin ma génn ñëw fekk si la parce que li ngay def nii loolu la ñu soxla mais pas nekk fii jooy nit ki deux jours après déplacé wu comme si rien n'était passé te jigéen ñi nangeen takkaat seen sër xam fi ngeen di teg seen tànk te yar seeni doom yi surtout ku ci toog deux jours ku ci toog ku ci toog ku ci toog benn cinq minutes gisoo sa doom na nga fexe xam si lu mu nekk ñu bàyyi appartement yi bàyyi wëri bàyyi taxawaalu ji dëgg te ñu bañ a teg benn doom te ñu bañ a teg benn doom pression ay indi yi ay courant bi fayaguñ ko ay courant coupé na nañ jéem a chargé gis nga doom lu ko yàlla mayul munoo wax a wax a wax ba mu may ko ko il faut qu'on soit très clair mais ay affaire de zembare ay wax yu salte léegi wax yi nga doon dégg ci maan yu góor ñi léegi moom ngay gis jigéen ñi nekk si banlieue yi di ko yor ay zembare ay toj seen baanaar yi mu naan affaire yu salte yooyu yooyu waa xaw ma sax <laughs> yooyu du cëru jigéen jigéen boo jigéen xoolal dafay am kersa am cëslaay am lépp kenn bañ ko dégg ci dara parce que yéen yéen yéen tey par exemple doom bu fi baax jigéen la ñuy laaj nan la ko yaree. woon na yàlla woon na yàlla ma la de dogu la de looloo tax ma jéppi Nabou Leye parce que daf jigéen ba parce que jigéen da nga war a am comportement boo xamante ni ah comportement bu respectable lay doon gis nga jigéen bandi bandi kaay ma wax la des fois nag gis nga góor ñi ñoo leen si poussé parce que dafa am ñoo xamante ni góor ñoo xamante ni ci banlieue bi lañ nekk yow soo bandiwul rek ah yow yow doo naandite maanaam soo waxul seen moo yooyu yow doo naanite wala yow doo lii wala doo laa des fois man jéppi gi ma jéppi nabu lay yëpp loolu la parce que damay seetaan naa ko ay théâtre fekk day bànni bànnilu foo ko fekk day bànni bànnilu man du ma xam kii ban genre de en plus que yow nga yor sa doom jigéen doom bu jigéen yow yaay référence am yaa ngi dégg yow yaay référence am lépp loo xamante ne xoolal soo xoolee xale bi ay comportement yaayam dong la yor comportement yaayam la yor si xale bu tuuti ju toogoo demulagoo fenn. man tey sama yaay ko ji tey sama yaay tey ñu ko ñu jiñoon ko tey liñ jiñ yaayam wóor na yàlla du ma génn si télé wala may tontu benn commentaire parce que sama ngoor moo ma ko dul may xam naa ne dinaa jooy ba dee. jooy ba dee laa nar a def mais gis nga jigéen ñi ñoo war a xam ne jigéen da xam ne yow jigéen nga jigéen magasin yàlla nga. jigéen da ah. war a def yëfu jigéen jigéen da war a yor comportement bu baax jigéen da war a am fulla am fayda yaa ngi dégg kenn du la fekk lii sa liggéey la na nga si de na ci ànd fulla ak fayda mais pas alalu jàmbur nga teg sa bët mu jaral la ngay dem si ay sëriñ di leen liggéey pour ñu jox la pour nga jël seen alal nga soxla si nit moom moom rafet na mu mënoon na am lu nekk si góor mën wala bu takkee sërëm bi mën na am lu nekk ci moom góor mën na na gis bëgg la jaral la dafa lool àdduna ak lu si biir mais mais yu muy def ñàkk fayda ñàkk classe ñàkk personnalité moom la ñu def amuñu benn fulla seen bopp maa ngi jégalu sëñ Babacar ci dagg bi ma la dagg. merci sëñ Babacar danga pare. ok non non non non dama ko doon mooy mu wax Ndiaye Ndiaye loolu la en tout cas daal man dama leen di wax benn affaire man moom du ma ne gis naa yàlla te gisuma yàlla yéen jigéen ñi lii daf leen war a jàngalaat gën leen takku parce que fii góor ñi fii baax ñu ngi fi baax de ba léegi te nu mu mën a demee ci àdduna fii amul crime boo mën a def génn ci si kaw suuf. amul ak lo meuna def bo dugon ci tatu gaynde sax wallahi wal azim non police suñu police suñu police dafa nek police bo xamantene gis nga genre bas yi tamit dañ leen di remercier bu baax a baax bah baax ils font des ex du ex excellent boulot parce que aduna li la mhm. fi lu fi lëndëm Sénégal non lañ ko tabaxé légui il faut qu'on soit très clair ñi fi tok ni djub djubal jubanti lañu wax bu ken faté slogan bobu jub jubal jubanti man bañu ma fi dara sama frère bima bokal nday ak bay su nekul lu ci yoon pa ba nga neulé dafa japp domam dem yobuko police dako japp neko ne ko kirtim yóbbu ko loolu mooy àdduna ku fi nekul lu yoon deug la yalla bëgg deug moy njëkk moy muju mm-hmm. man duma protéger kenn parce que projet bi ni ñu votel ñom Ousmane Sonko man mi top wallahi wal azim dama ci bokk mooy lan jub jubal jubbanti bañu ma frère bañu ma sœur ku ci nekkul lu dul yoon wallaahi wal azim su ma mënee taxaw dénoncé la dama lay dénoncé amul ay dret amul dara nañu nekk ci yoon Sénégal loolu la soxla nañ jubal Sénégal buñ jubalee wallaahi wal azim benn pays duñu duñu raw ci kaw suuf mais naafeq yi ñoo fi bëri bañ a liggéey bëgg lu yomb nekk fii ci ay dil naan tey ma teg la parisienne dara wala nangam nañ bàyyi loolu la parisienne ni nga yaayam bootee xamoo ko il faut qu'on soit très clair nit ki munoo defu la dara waxu la defu la nga bëgg ko attaque wala nga koy def yenn affaire yi loolu san ne passe pas fii ci dëkk bi Ousmane Sonko ak ak ak Bassirou Diomaye ñoo fi toog jub jubal jubanti la ñu wax kuñ fi gisul kuñ fi gis ngay def naka suñu noonu wallahi wal azim dañ lay dénoncer te doo ci mën dara lol moy le juge ñun on te remercie beaucoup dañ lay remercier di remercier ñi panel bi ñep di remercier aussi notre frère Bas, chapeau à Bas. parce que aduna la si kenn du fi lakh saay tay tay tay kenn waru ko parce que tay tay bokay lakh day jël empereur yak suñuy dom frère yak cousin waaw nañu ci mais Babacar ak dëkk bi lu ñu am slogan slogan Usain baal ma lu ñu am slogan dëgg la jub jubal jubanti yooyu yëpp c'est bien beau yooyu yëpp baax na fal fol yooyu yëpp dëgg la mais dafa am loo xamante ne ci way jur yi lay commencé nañu yar seen doom yi éducation de base dafa baax mën nga ñëw ñu yar la fi ñu la war a yaree nga juddoo biir bandi juddoo biir ginnaaw raay du tax nga doon bandi du tax nga doon reykat du doon nga doon sàcc parce que parents yi la mu la war a yaree commencé na ko ca ba ngay xale sa biir kër munoo ne da ngay bàyyi ba sa doom màgg tollu fenn fi nga naan ko noo xaaral ma jéem ma def lii ci moom xaaral ma jéem ma def lee noo non non non non éducation de base na ñëwaat nañuy jàngal suñu doom doylu nañu leen di jàngal loo moomul bu ko laal loo moomul bul ko jege. donc foofu la affaire yi commencé c'est bien beau jub jubal jubbanti d'accord naa yooyu yëpp c'est bien mais bu dee ci wàllum affaire u Nabou Leye yii mii ma gis nii lii ma gis nii alalu àdduna kese la woon te bu ñu ko yaroon ci doylu du yegg si fii nii yëpp kon du ne xaar ma dem jël sama baqanu xarit ndax six millions huit cent nañu dellu ci base bi nañu dellu ci baas bi euh, li fa baal ma ñëwal s'il te waaw soxna si na def maa maa ngi maa ngi nuyu ñëpp. maa ngi ziar li fa. ngi si jàmm. waaw man day euh, deew Aziz moom vraiment depuis boobu ba léegi Sénégal nag ñu si bëri man sama man man bokk en premier mu lu ma jàngal lu bëree bëri bëri sax si si Sénégal xam naa léegi moom ñu bëri yeewu nañu ñu bëri yeewu nañu ba pare Sénégal am na loo xamante ne kenn dootu ko nangooti. mais man fi nga daan rek laay waxee di nga sono si affaire éducation de base gis nga le mal est très profond man damay wax en général parce que waajur si waajur yi sax ñoo njëkk yarootul ñoo ñoo njëkk yaradiku d' abord balaa balaa ñu balaa ñu yaraate comprendre nga ñu yar kenn loolu mooy dëgg Sénégal waajur yi suñu bopp yaratuñ kenn ñoom ñooy nekk ci àll yi ñooy xoolal dama xool xew yi li li ñu fay def te moo nga xool ci mbedd bi seen seen ay comportement ñu ñu yaruwuñu ba yaraate yaa ngi dégg ba pare Sénégal suñu société si boppam mooy chaque jour mokk ko moo suñu société moo feebar dafa feebar on a une société malade parce que société boo xamante ni ay nit Sénégal dañuy ñun dañuy cultiver reewande loolu mooy moo tax looy dégg maa la gën a reew rek ngay dégg doo dégg bug maa la gën a yaru merci hein. ah, parfum dawa merci pour les roses yi nga ki juge. yaa rek ngay dégg malgré gëna rek sadik mala gëna dof mala con xaw mais mala gëna après ci lu c'est le mal il est profond man limay wax tout le temps ñun suñu culture ñuy

comprends nga di fanaan kër jàmbur loolu moo dul éduca loolu loolu c'est-à-dire loolu kenn mënu ki dara gis nga police mënul si loolu dara Sénégal il faut nit ñi yar seen bopp d'abord conscient ci la ñuy def xam nga ñaaw njort dem kër heure heure kër jàmbur dafa am heure ñibbi dafa am eu dox am euro fane am euro lekk am euro naan am loolu bi ko organisé wul suñu ñun suñu biir que nga kenn mënu ci dara police mënu que dara police mënu ci dara il faut que les gens comprennent que ne affaire bi nekkatul affaire affaire affaire ay ay sécurité mais affaire yarin la si bopp bi kaa nit ku nekk conscient si li ngay def bañ ci xaar papa bañ ci xaar yaay am na ñoo xam ne ñoo gën a yaru kuy yaru comprendre nga nit ki nag man na bulay moom ay wax du ko wax man man man man moom pare woon ci pare woon ci affaire meurtre bi wax dëgg yàlla man je parle en général parce que yi kaa yi nii day amaat di mais mais mais dem comment dem benn vidéo benn paa di wax si affaire accident ba ñaari moto daan ci ginnaawam yéen saa ngeen ko non non mi ngi si YouTube. waaw cest à paa bi dafay taxaw di wax day taxaw di wax si accident yi pareegul sax ñaari mbënd si ginnaawam caméra ñu bëggante. comprendre maa ngi mm-hmm. jégalu nag man c'est que dama bëgg dama bëgg rek ñuy defar lii yoon la pour defar parce que c'est pas normal année yi pas Sénégal les gens yi ngay di comme pas possible. loolu kenn xamul fu mu jóge la xamul mooy solution bi mooy ni ku nekk nga yar sa bopp fii kenn du mun amul kenn amul temps yar kenn fii kenn amul temps yar kenn ñëpp ngi uti papa ak yaay doom ak ci bokk yam kenn yarul kenn ni ku nekk nag yaay toog def prise de conscience nga ne nit nga man nit laa waaw lii la lii war lii laa war a def lii laa warul def comprendre nga nous sommes dix-huit millions bu ko defee nit ku nekk. la bi baal ma de la parisienne. waaw Bichou. yow yaa yéegaloon kii kii def profil Nabou Léye. kan la gisuma ko de. wàccee nañ ko. ah gisuma ko gisuma ko sax. xam naa Léopard wàccee ko. nga def profil nabulee ba pare bëgg taxaw fii n'importe quoi. xam na gisuma ko seetluwuma ko kon xam naa léopard wala tutu wàccee nañ ko. ok sëñ bi jëral jaaxle. <laughs> merci waaw maa ngi ba si kanam. User. User User. ubbil mi ngi fi waaye ok User waxal. User. Ah, kii new fi léopard doo ko wàcc waaw baa leen kat di leen ziar waaw ah, ziar nañ merci waay macha allah eh, kii bi teewaay bi rafet na encore comme d'habitude rek xam naa après dinaa dina dinaa mu ma yeggale li may def après ma yéegaat gros bise gros bise waaye asalaamaaleykum yaatam mo ubbi yaa yaatam mo ubbi sa jaaboon goros biis dëgg dëgg maa ko yow yaa ngi doon nelaw mun na woon continuer maa ngi wuy téléphone nii mais xoola wala goros biis biis la toi waaw merci kimbo bii de la may may buy coupé xoola goros biis bi laa mënta digérer ma non mais c'est non mais juge moom fi lu ma bëggoon wax sax je pense que Babacar wax na ko yow moom euh, avant dama doon dugg sa mais du doon éterniser dama doon survoler rek dal di jàll mais affaire bi moo tax ma ma jàpp la ma jàpp la moo tax ma adhéré daal parce que affaire bi ni ñëpp la métti mais man bu nekk sa bopp nga xam fi mu ma toll yàlla rek ko xam ak yonent bi dama mel ni dama bokk ak ñoom benn deret moo tax nag si laa gën a jàppee parce que teggi woo sa loxo yaa vraiment kenn kenn mënul fàtte daal ndax yow parce que bu ma déggee ñu wax librairie dañ leen war a réguler dañ leen war a dañ leen war a yemale parce que c'est devenu du n'importe quoi mën nañu doon ay journaliste non non yow de bokkoo si mm. yow moom c'est haut la main waaw haut la main da nga génn si loo bi parce que yow yaa ngi dalal xelu nit ñi yaa ngi informé fi nga xam ne ñeneen ñi bàyyi nañ coow nañ ko bàyyi nañ ko mais yow bàyyi woo yaa ngi def sa warugal même envers famille ñi nga xam ne ñoom ñoo dem daal yal na leen yàlla mm. jégal te xaareen sa àjjana yi gën a kawe fu suuf seen kaw ñëpp la métti man saa ma siy wax rek sama bëti dafay taa parce que damay imaginer rek yaakaar bu tas bi moment bi yi ñu amoon yëpp ndeysaan ah xalaat ne moment boobu xoolal sama nit yi nii def lii mais parisien mu wax moo si nekk rek femme bi dafa amoon emprise bu ëpp si waa xam naa nag waa ji à la fin il n'en plus bu munoon mm. jógaat tey ba wax nit ñi peut être que seen seen diggante sax demeetul waaw xam naa nag moom mootul nag bi mu jël tek ko ci wétam moyen la won pour am distance ak femme bi mais xaliss peut être que moy moy moy moy ki bi dé moy élément déclencheur bi mais buñ ko sété mm. ba ci bir ba ci bir comme niko ko parisienne décri décrire dafa am personnage lo xamné sen xol mo bon ils ont le mal en eux te duñ ko mën a maîtriser buñ bool buñ la bëggé def lo dara rek mu rëcc leen rek haine mooy génn seen kër bi te haine boobu dañuy capable lu nekk je pense que xaalis bi c'est vrai parce que xaalis te yóbbu fit ah ni ñu amatuñu ah, sago ndax xaalis mais jalousie bi jalousie bi bi koy seet boo boo moom moo nekk bi sax ko doon déranger waali dafa ñëw jël jël kii place bi mu amoon xam naa auprès de Aziz di ko def loolu lu ko neex di ko jaaloo fu nekk di wër xel wër xel bi di ko di ko di ko manipuler daal xam naa nag kii boobu la amatuloon liberté boobu la amatuloon accès boobu la amatuloon waali ñëw déranger ko est-ce que Aziz def ko exprès aussi mais mm-hmm. daal métti na daal métti na mais yow moom bu ñëpp bàyyee yow yaa ngi continuer macha allah mm-hmm. yal na la yàlla fay sa xol yàlla jàppale la yëkkati la si kaw fa dañuy dalal sa xel gis nga le juge mi ku ko laal daf ñuy laal barki sëy bi waaw dëgg la de léegi kay famille lañ moom njaboot moom ñun ñooy njaboot désormais désormais sunu lépp sunu lépp lañ ko jox man de maa ngi nii nëbbatuuma nëbbatuuma laaxatuuma wallahi wal azim ku ko ne virgule mën naa ko man gaaw ma jàpp ni demee jàpp naa ko ak sa suñu siste yi koy jàppale aussi comme j'ai dit rek les gardiens du temple xam naa ñenn ñi ñëw ñu leer <laughs> pas parisienne ñoom Nata ñoom Tutu tout le monde daal Nata xam na léegi mu ñëw. waa Mati Bintu maa ngi lay doog a xàmmee. parce tur bi benn Facebook la Mati Bintu Malick Sarr. Mm. Facebook la woy bon am na ko fi yeggoon ngeen wax. tuddee boppam Naboulaye mën na bañ a ànd koku day changé tur rek def Naboulaye mën na ko def pour ruube wala dara mais kenn wàcce wu ko je daa tëb. je wàcceel user wàcceel user sànq ba léegi ñu koy woo kiiwul. ah ñu bàyyi dafa mel ni dama fi seet doomu femme bi mais moom day métital boppam rek warul ñëw sax di dugg si live maa ngi gis. muy muy ajouté ay nit. bon day métital boppam rek loolu amul benn solo li am bon bu fekkee ne bon yàlla moo xam mais lii am am na ba pare. mooy doomu nabule bi da nga ko fee gis. waaw dama gis princesse ba xaw ma muy wax nit ñi je je vous kii yónnee naa la delloo ma sama sama kii. delloo ma sama sama demande ak sama invitation sànq la sànq bi may doog waaw mais day mérite boo xam ne dañ ko lii parce que vraiment la rek doy na waar ah. conseil seen entourage baaxul parce que xale bi heure bi dañu waroon a téléphone am mu sori réseaux sociaux yi. voilà mu ngi noonu sànq seen seen naa teel a voyu. lan ba muy xultu sax mu doon xultu sax di wax ne bàyyi yéen ngeen ko bàyyi leen sànq la. ay booru ay booru. je suis choquée je pourtant parisien pourtant maa ngi koy wax léegi man la naan moom doom ji doom ji dafa waroon da waroon kii man comportement yaay ji la yor maa maa ngi koy wax léegi voilà c'est vrai lii provocation la te day métital boppam man sama yaay ñi ngi koy wax yéen ñu ñu ñu ngi ko jiñ nañ ko dara comme lii rey nit rey nit sa xarit nga rey ñu ne bokk nga si ñu ko rey wala rey bi yooyu yaa ko yaa maanaam yaa tëgg lépp comme Khalela, peut-être. elle est dans le déni. elle ne réalise pas encore la gravité. de la situation dans ce cas dafa am am peut-être qu'elle est traumatisée. elle a besoin d'aide. yëpp dañoo xamatul fu ñuy teg seen tànk mook bàcc seera nekk di live di sonal na parisien bàyyi ñu waay kii traumatisé kii day nekk di fecc n'importe quoi kii traumatisé dara waay la amagul maturité amagul si war a génn ñu ko mu xam ne du jege waaye olof njaay dafa ne olof njaay day wax ay wax yu dëggu yu yàgg depuis ci suñuy maam olof njaay nee na doom ndeyam da caa dëgër bu koy nampal da koy waaw xool waaw waaw kañ gis nga ween ween dafa important ni ko saaneex di waxe ween ween dafa important de naam naam bu daan day akar day akar na wóor kooku tamit ñun kooku magu Aziz magu Aziz bu ñuy rey magam mu toog mu ne bu gisoon na tamit mun na ko xaw xaw xaw ma daal mun na ah, xaw ñu wéruñu tamit wéru moom kooku wéru de trouble ah, ak bu gome kooku moom wéru. yooyu rek rek ñaan mun naa ak bu wéroon woowee na ko dama damay dem kër Aziz damay woo Aziz jotuma ko kañ dem këram daaj bu fekkoon ku nite la bu fekkoon ku nite dina lan moo tax man nga may woo man. Aziz soxna si soxna si soxna mm-hmm. si nit ak niñ la yaree. gis nga ñii famille bi ku leen xool xam ne dañ leen a yar. mën nañoo mer de métti na leen trop ba ci seen biir xol sëgëm ñi bokkul ak Aziz la métti sàkkantuma ak ñoom ñi bokk benn ween bokk benn geño metti na leen ba ci kanam mais moom manipulé kooku noonu. na mais am na loo xamante ne buñ la ko yarulee doo ko xam doo ko xam buñ la yarul ci banditisme doo xam banditisme buñ la yarul ci wëyu def yëf yu bon doo ko xam noo ko xam. non non affaire bi ci não não non non non affaire bi não não não non baax xoolal non não affaire banditisme bu não mais affaire não non é. é du não é, ba affaire hum, não yeewu la não affaire affaire né? não réaction. réaction não dafa tànk não musu ko não ay sentiment. loolu laay expliqué. sama rakk duñ ko rey bay taxaw. naan ay ku ko rey ak ko kii ndax ndax accolade. boo ko gisoon bu ba pare nabu nabu lay taxaw yàq waa ji yàq frère am ne ko góor jigéen la sa tribunal. góor jigéen la ba tey ba tey yow yaa wax di rafetal. léegi avec ça ngeen leen métti leen fa métti yam. juge billaay moo tax ma gis nga man sama man sama xaar laay wax rek man man dama ñaaw njort dama naan la magu boobu boo demee am lu mu ci xam. bien avant hmm. que parce que boo demee nabu sax expliqué na ko bien bëgg def. dina génne ay man sama sama xaar la man. kooku aussi dafa am excès de confiance ci nabu lay parce que kooku. mënul hmm. tëb tëb rek mu imaginer mu mu réaliser que ni Nabou elle est capable de faire ça. lii fa am na lu mu ci xam de. dafa mel ni dañu mel ne ku ñu. non lu mu ci xam dañu ñu liggéey. parce que xoolal. du ñu wax du ñu ngi fi wax fan yi yëpp ne ñoom dañoo ah, mystique. ku mystique ba téye sa doom lu mu am jox ko fu mu jëm yóbbu ko mënu la caa boole waale. Mm. est-ce que mënu la waale. ba kenn du ŋaam kenn du wax. ah waaw mu ngi noonu. mu ngi noonu lii am ba am daal mooy lenn nañu éduquer suñu doom yi ñun ñi nga xamante ne deewaguñu ñu ngi toll ci jurum doom nañu éduquer suñu doom yi. gis nga jàngal leen lu baax tàmmal leen lu baax bañ leen bañ bàyyi bañ leen bàyyi ak yu bon yi sa doom buy ànd ak ku bon ne ko xee na dakk arrêté ko mm-hmm. loolay dëgg waaye bàyyi seen doom yi waxee nga naan mënaluma ko dara man balaa maa dee rek nday ju ne léeg jur sa doom taxaw naan mm-hmm. mënaluma ko dara man loolu moo mun a génne sama xol bi man la njaboot bi njabootu kanaara la dañuy jiitu nga topp seen ay njaboot bi njabootu kanaara la dañuy jiitu nga topp seen ginnaaw man dinaa jiitu man yow sama doom dina jiitu man ma jur la man ma war a jiitu yow yaay jiitu man ma topp sa ginnaaw mm-hmm. kon nga faatu kon nga faatu la xam nga man lan laa mënul man man ma ëmb sama doom neuf mois ku dul yàlla fekkuma si yaa ngi dégg mm. ma ma wës ma war a wësin mag bi xaw ma rey yëg kaw table médecin yi sax laa la wax bu boo leen xawee soof sax ñu dem toog fee naan dañuy reer wala di naan seen kafe léegi yow doom boobu yow doom boobu dina ñëw tey ma nàmpal la tey ba nga màgg tey man ma war a nekk sa kilifa ma naan la yow yaay sam nekk sama kilifa man man dinaa ragal doom Ya. man di ma jox ni lii tax man nga sama beti, ba su la naree wax dëgg ma la wax du fi man ma wax la ma sama jëkk xamal lu may wax sama jëkk xamal lu may wax sama juga kau lu may wax yow dangaa dangaa dangaa nee na damaa kii daal maanaam aw ma kii si xale ma ne ko ñii ma bëgg man maa leen man man leen table te ba may ëmb mois kon munoo maa gën a bëgg samay doom mais suba suba lu si xew xam nga lan la ñuy wax kenn wax baay ba ana nday dala yow moomu yow moomu jëkkër ji sax yow moom seen papa sax danga naan sa doom bi daaw doomu doomu doomu Kinzo la ñuy wax waaye du ñu wax mukk doomu doomu. fa doom bi la doomu diw bu baaxee ñëpp naan doomu conséquences yëpp dañ koy këpp ci yaay ji yaay ji mooy mooy subir toutes les tous les conséquences. men moo tax yaay yi nag war a fas jom nag takk seen sër nag yar seen doom yi. ñu yar xale dañ koy limité. yemal fii bul dem fii awal nii bul wax ak kii bul xool fii xale dañ koy yar waaye bàyyi xale yi ñu mel ne ay fas yu rëcc maa xala yow mag yi da ngay dugg si tiktok bi ñuy gulu gulu gulu gulu gulu ak xawma lan toj sa mbaari mu naan a xawma cas xawma nuñ koy waxee noonu ci mag sista doomu ma la wax bi yëpp loolu la am na ku ko wax sa doom yi di la seetaan sa doom yi di la seetaan mais yow mais attendez quand même man maa du ah. nangu benn doom di ma gën ndax la junni bu may jox wala ñaari junni yu may jox man du ma nangu doom di ma gën laa a wax loolu du ma ko def su ma ko waxee nii nii nii sama sama sama taw 11 ans la am mais dañ ma naan yow da nga sévère yow kii dafa. mën na ko xale fii lay xamee xola fii lay xamee. ñu naan ma yow da ngaa sévère trop ma ne leen damay sévère parce que xam nga lu may bañ suba. suba laay bañ man bëgguma ku ma yey man tey jii sama doom tey nit bu ñëwee kalaame ma amaana musul am sax te yàlla bu mu am te du ñàkk tamit mais ku ñëw kalaame bi nag sa doom moo ma def nii xam naa lan la si def ak lu mu si deful parce que xam nga man naa yar samay doom xam naa lan lañ capable ak lu ñu capable gis nga doom da nga koy yar mm-hmm. amul da ngay jël fitam loo jël fitam mais xale da koy yar doom bu ñu ko daan bokk boo yar léegi ñu ko yar doom bu ñu yar xale yu ndaw woo bët li ma bañ xalé bo xamantene day romb mak duko nuyu. ba pare aussi Kenzo Kenzo. Kenzo ba pare aussi on doit on doit reparler à nos artistes. artistes yi si boppam. ci way Ken téré Ken mënul téré ken mënul téré affaire art ak culture dëkk. Hmm. mais on doit parler ak ñom pour que ñu xolaat seeni thème yi nga xamantene hmm. mom li ah, ko way yow lolu fekk nga ma wax ko ba tok am na benn panel bu ma dugg li la wax. bi yeboo artiste yëpp ma ne man ndax amoon na ay artiste moi je wax naa leen ko. way bu yeetewul way bu yeetewul di saaga di way di di di di way di way waxi caga waxi yu kenn xamul ku bëgg a cagatu dugal sa biir ndéeg nga cagatu mais bu yàq doomu jàmbur bu yàq doomu jàmbur xale yi di répété n'importe quoi. mais artiste bi bu leen fàtte aussi marketing am lay def woyam lay génnee yow mi ñu yar nag. nga toog ñu war a yow xool xaaral s'il te plaît. mi ñu yar nag say waaju yar la yow laa yow yaay xool lépp lu ñu teg ci marché bi lan laa ci war a jël ak lu ma ci warut a jël parce que am na ñoo xam lu bon loolu moo leen gënal artist bi ci boppam ñooñu di ko jël lay woyal. mais li amu fi woon mu am ci xaalisam. li waykat sañoon na ko fee way. Ah, yaay xool lu baax waykat sañoon na ko fee way dañuy censuré dañ la doon censuré pourquoi ñu arrêté loolu lan moo xew lan moo xew ba ñu war a arrêté loolu di bàyyi ñuy way du n'importe quoi lu tax buñ ko wayee xale yi déglu ko bu ko xale yi dégloo dañ koy jëfe di way di yore ay paaka di way di di yore ay butéelu naan gulo gulo gulo di di di di way di di di way ay ay ay. non mais xale yoo xamante ne gulu gulu am na ñoo xamante ne duñu gulu gulu xalaatuñ ko parce que tamit nekkuñu ci environnement boobu seen yaay yi teg nañ leen foo xam xalaatuñu dem di way ay gulu gulu wala di def yenn manière yi. ma ne gis nga affaire woy yooyu ko dans ce cas. gis nga affaire woy yooyu loolu mm-hmm. woy yooyu loolu noonu ordre mondial la loolu dafa am ñu jóg uniquement pour décastaliser ay dëkk. yàq na ay éducation. parce que musique dafa xaraam ay sayaatin rek ñoo indi xaalis bi ñoo indi xaalis bi ñoo lay produire ñoo lay wax da ngay way. Eh, loolu loolu doo si mën dara. comprends nga loolu beneen loolu beneen level la dafa am ñoo xam ñu jógee dañuy bëgg a yàq ay dëkk gis nga tey jii buñ bëggee dugal sa dëkk comme par exemple affaire affaire góor jigéen yi nii. bu mhm. dugal dugal si dëkk bi mënuñu ko dañ koy jaawale ci ay way. xale jël ay góor jigéen loolu ñuy def. xoola en tout cas loolu États-Unis la njëkk a am loolu États-Unis que dee lobby yu mag a mag a mag yoo xamante ne dañu investir xaalis bu baree baree si rab bi boo leen gisee industrie musicale bu Amérique nu mu nu mu doole bu mu am boo ci bokkee yi ngay sañ a def

maa maa julli bi zéro la mën lobby yooyu noonu lobby yooyu yow pour yow pour lan la pour culture boobu ngay wax noonu moom la ñuy njëkk a effacer religion bi am ñu effacer ko seen objectif lenn kese la ñu indi le ceddoïsme si je peux le dire ainsi lobby boobu mooy pour ñu indi le ceddoïsme dara léppay daggan àdduna bi lépp la ñuy daganal dootul am interdit loolu benn nekk parent bu nekk nag il y va yow si sa droit ngeen man dinaa rey mhm. sama bopp ba lobby yi di ñëw te gis nga li commencement bi kese la les années à venir yi ñuy ñëw suñu kanam dañuy gën a am doole. donc parent bu ne nag yaay lobby yi di ñëw dangay samay doom. man xam naa ay artiste biir Sénégal yoo xamante ne duñu góor jigéen de mais message góor jigéen ñoom dañ ko jàllale te pour pourtant dañ leen fay xaalis bu bari

parisienne li muy wax nii li muy wax nii ñun ñoo la ko gën xam lobby yi xam nañ ni muy ñëwee parce que au moins ñun on est des mais on a fait nos def nañ suñuy recherche def suñu lépp lan mooy signe franc-maçonnique ak lan la ci ak ak raison bi xam naa xam ban am Babacar dafay dagg

ñu ngi mm-hmm. képp ku nekk ci panel bi maa ngi lay nuyu. ça na ngeen def. fay nañ la. <laughs> maa ngi waaw maa ngi leen lu bari bari. ma ma seconde kii parisienne. du defoo dara ni non non. kon léegi xaar ma yëgalaat sa kii bi ngay mën a tëj micro yooyu nga gérer. waaw waaw waaw d'accord ah. di sant di sant juge rek ma ne ko di sant juge di ko sant di ko gërëm ndax tey jii euh, xel yu bari fàttu woon nañu euh, ñëpp ñëpp ñëpp réeroon nañu kenn ku ci nekk sa bopp toj na kenn ku ci nekk yaa ngi yaa ngi am na benn ragal bu ne ci yow am na benn peur boo xamante ni mi ngi ci yow nga soit que nga ne ci sa biir néeg soit que nga nekk ci douche soit que fi yaa xam foo nekk mais tey alhamdulilah rabil alamin tey juge tey tey tey gindi ngi ñu tey ci lu bëree baree baree bëri macha allah tey am na ci ñu bëri ñoo xamante ni yaag ñoom yéen a ko doon defandoo mais tey ji ñoom ñëpp tey tey tey lem nañ seeni basang donc tey yow rek yow yaa ci nekk di boole ko yàlla di la ci suturaal di la ci may ndam te ndax loo ñu wax rek bu ma yéegee bu ma yéegul maa ngi ci suuf boo loo loo lu ñu fi wax rek lu ñu fi wax rek yàlla de ciy teg loxoom ba ba ñëpp teg ci seen seen bët kon loolu sant yàlla la mooy li ma leen wax yéen a ngi wax léegi léegi xale bi yéeg euh, euh, doomu na bu lii lu ñu wax nee nañu doom ja ndey ja ko wax nga boobu sa ndeya baaxul doomu na bu la mën a mel li fa li fa maa ngi lay nuyu da nga fi wax tam da indiwaat tam beneen sujet tam ci affaire jigéen ñi affaire yar affaire éducation de base gis nga éducation de base ku raté sa éducation de base raté nga sa lépp ci àddina bu sa éducation de base raté non mooy yàqu nga mooy yàqu nga éducation de base lii nag gis nga nabu lii mu def nii nee naa la nabu dafay yàq képp koo xamante ni jigéen nga nabu deru jigéen la saltel nabu deru jigéen la yàq ci àddina Fatou Ba doguma la sax doom ji dama ko yéex a hmm. gis dégg naa day dem di live yi di ruube fii du live yooyu dama ko yéex a gis. kon naa ko teg baasam moom ak baayam. yow yow yow yow yow juge yow tam. doom ji ah, sànq la yàgg na fi de sànq la woon. ko wax boobu sa ndey baaxul nañ waxante dëgg. ah loolu la rek moom moom moom yaayam moom moom xool xale bi ndeysaan dafa jar a yërëm xale bi dafa jar a ndax yaayam dafa yàq àddunaam yaayam dafa yàq àddunaam dafa jar yi man bi dama ko yërëm lii rek la ñuy wax moo tax gis nga dañuy wax euh, wax ngeen ko léegi léegi ñoom euh, Kinzo ñoom parisien yéen yéen a ko doon waxtaan léegi léegi gis nga alal alal bu la. elle est dama ko yërëm man. effectivement effectivement gis nga euh, nit ki dañu war man dal man bon man man man man man man man sama objectif la wax ah. man gis nga man man man limay sam man limay sam ci sama der dafa dafa dafa bari motax lu bari amna yenn yo xamanteni buma ko buma ko buma sama fit buma ko ñëmé sax sama sama sama sama xelama yedd surtout jigen li jig goor jigul jigen te ya goor mën nga taxaw fi léegi léegi yow ak goor goor sañ def lenn moom mu genn ci yow ku jigen ci sañu ko def. ndax li jikku góor ki yow yow ku jigéen ki jiku la moo tax nee naa la nabu daf ñu daf ñu daf ñu def rappel nabu daf ñu def rappel lii tax na kenn ku ci nekk éducation de base bi war nañ ci gëstuwaat war nañ koo xoolaat bu baax a baax a baax a baax a baax éducation de base la. mais waaw. mooy li may wax ah. benn daam benn xissa buy nettali. Mm, mm. ñu benn waay dafa ñu fekk mm-hmm. papa ñu toog. Mm-hmm. mu jël papa ci yaru ba biir weex dóor dóor ci suuf. Mm-hmm. ndig ndig bi damm. rek papa ji reetaan. mu ne ko la mu ne ko parce que lii. defoon naa ko sama baay moo tax mu ree ma. <laughs> moom noonu ah. mooy famille boobu doon ndigg bu baax moom moom. li fa li fa gis nga sama yaay daf ko daan wax sama yaay daf sama yaay dafa daan wax naan.